dal leen ak jàmm mbokku internet yi bébé bi ñu sàccoon fële ca hôpital bu Kër Massar moom la ñu fas yéene ànd ak yéen ngir wax leen ana nan la gendarmerie yi def ba jàpp ki nga xamante ne moom mooy soodo mi jëloon xale la takk ba déglu ki nga gardien ba ak sage-femme ba médecin ba ak sax ki nga xamante ne moom mooy bàyyi doom ji di bokk ci ñi fekkee mbir mi ca noonu ci la gendarmerie yi tàmbalee wër biir hôpital bi dugg ci ruq-ruqaat yi xool fépp gisuñu xale bi waaye nag ca salle de conférence ba dañu fekk ab saak bu ñu fa tekk bàyyi ko fa te boobule saak ma nga ne moom la kilii di moo jël xale la soloon laata muy change yére di sol ab bi ko may mu mën a dugg ca maternité ba ba jël xale ba booru midi ca la chauffeuru médecin chef ba daldi jël ab woto L200 tekk ay baafalam ak i haut-parleur am jiitu gàngoor wa topp ci ginnaawam ñuy wër di wax ne am na xale bu réer moom la ñuy wër méngoog ni ñu ko tàmmee di defee fii la ci ndakaaru njaay saa soo xamante ne sax ab xale réer na ku for xale bu réer la ñuy dégg waaye boobule wër mel na ni am na njëriñ lool ndax ca booru njolloor 13 ca la ñu tàmbali di jot ay message ak i ay bataaxal ak i woote yu leen di wax njot yu ñu am ci mbir moomu la ca noonu ñoom ñëpp ànd ako sandarma yi ca la ñu tàmbale nag daal di jublu fi nga xamante ne fa lañ leen wax ne fa la ñu gis ab xale bu leen jaaxal tàmbali ko yor yor ba timis sandarma yi maanaam takk der yi ñu ngi wër di xool naka fan la ñuy def ba gis ki ñu leen tegtal ne moo jël xale bi naka noonu bëccëg bi di jeex mu commencé lëndëm guddi gi tàmbalee ñëw ca la ñu yegg ca bërëb ba fële yëmbal benn barak dal di wër kër ga bañ ca jógee ko ci la ñenn ci ñoom dal di dugg ca biir kër ga fekk fa ki nga xamante ne moom mooy soxna si di sooda ak xale bi waaye daanaka daf leen a gis rek tàmbali yuuxu ca di lam mënate ko dal di ko yóbbu foofule ca l'hôpital ba sodal ko yére waa kër docteur yu weex ya nga xamante ne moom la sonoon ca ba muy jël xale ba waaye naka lañ ko sololee yooyu la yére rek ca la bàyyi doom ji dal di koy xàmmee ndax jotoon na ko gis laata muy jël xale ba ci noonu la mbir mi yépp dal di mujj leere ak la ca topp yépp ñépp xam nañ ko soxna sooda mi jëloon bébé ak la mu wax ne moom moo tax mu jël ko jëkkëram ak mbetteel gu mu am ci mbir mi dëkkandoo ya ko doon nettali sage-femme yi docteur yi ak bàyyi xale bi wala sax yaayam mi nga xamante ne ci njàqare la dëkkoon di jooy rek laata muy gis doomam ndax moom nee na sax jàppoon na ni dootul gisati doomam waaye mbégte la am ci bi ñu ko waxee ne ko sa doom feeñ na lii lañ leen indi loon ci xibaar waa Tactic TV ñu ngi leen di jaajëfal